loolu mu taal sax waaye ni jaay fado dama film yoni waaw dañ naa ini yow ca jënd warga ba ak suukar ba yow yaa dem maa demoon kay ñu di jaay yaa ñàkk fayda yow Abdou war na laa dem ci warga eh modification loo kii Dengar lima lah. li ma media kok gis nga Abdou mi dee ko xool nii ak ñoom siri kii di jabaate ñoo bokk seen ñaari papa bokk ndey kii jabaate jabaate la. Abdou wax la woon. yow mii de li mu yor ci ay millions xamoo nu mu toll man man yow da kan moo la wax loolu. jabaate jabaate yi ma xam leen. yow sama nijaay Abdou mii dóorkat bu ngan la yow. yow daal xaalis jaral na la lu ne sama nijaay yow kii yónni ma nga weccet bi du dem weccet bi weccet war ngaa suukar moo la taxal jappar jappar di jaar ci naaj bu tàng bi dem di ko jënd ji yow nag ma xaajo Abdou mi nga xamante ne soo doon bay taawloo ko mën na la doom eh, eh. moo lay yónni boutique ba yow sama nijaay moo neexa nax da ngaa defee ni famille jabaate jabaate yi dañuy dóor du yow eh xaar ma xaar ma déggoo ñu naan la Sidiki jabaate moom dafa yabaate moom dafay jabaate <laughs> day jamaate ay jàmbaar lañ de ay jàmbaar ma ma jàll man. waaw gisoo ni muy takkee verre yi. xool may ma man. te ay fragara la ñàkk fayda kër gu toll ni yow nekk ci biir Abdou mat kaa jur Abdou di la ay boutique ba. Eh. yow ne xoolal Abdou mun ma kaa jur sama mag la xaalis sama mag nit. boo ah. yor gone nga. xaalis daal jaral na la jaay sa ngor yow. yow yow kii yàlla moom yow xaalis jaral na la jaay sa ngor wuy ma seen benn la yàlla yow ni ñuy dóore ni yàlla di doore Abdou bi ci bisu bisu péej ah. yow noonu la la la di dóore mun naa jël sax yow Abdou man bu bëgg ñàkk fayda man ah, Abdou ba ma joxe pour sànni dóor yi sax man Abdou ah, lu mu teg sama loxo ma jël dóor yi ah jërëjëf jërëjëf xamee woo leen xamee woo ku yor ku yoru ah Abdou mi boo waxee ñaari la tu vas comment ça va il faut la santé dangaa ba nga dangaa mën a yem ak kii ah non bu la yàlla lay demee lu muy upp fii. waaw lu may wax ndànk. waaw nag ku kan mooy nelaw fii yow yow. Abdou mooy nelaw. yow Abdou ngay mooy nelaw nga koy upp ni yow di ja. waaw yow yow salaamu bu rëy bi lan ay waay yow yaa mata di te fayda. maa tey. yow eh defal bii yow. <laughs> yow eh, sama xol gi du foofu quoi bu ma gisee sama xol gi dama lay ñor. <laughs> non ah doo tax nga duma eh, sa la wax. jërëjëf yow Abdou mi di nelaw yow eh, Abdou mi nga eh. xam jur nga a xañ nag yow xool naa ba xool ni ah, ah, ah, ko. eh xoolal ni war naa nelaw nga koy yee daw ma laa la wax. xam nga kii lu ma war a jox. war a jox. dix millions. dix millions la ma war a jox. waaw kii war maa jox dix millions te dix millions yooyu mën naa cee dugal douze millions habitants yëpp dimbali leen te xoolal bu ma ci jotee laaj ma nu may def. loolu lay may quinze mille nga faj say soxla. ati comme naan naa la ci quinze millions yow eh yow dix millions xaw ma quinze millions yu la Abdou dik moo tax nga toog fii di upp Abdou yow Abdou di nelaw nga tiim ko ci fenêtre bi di ko upp. soo eh, jox ma lii ma. Eh, sama kol gi baaxul de. sama eh, nijaay mi ñàkkul fay. kol gi dugaluma la ci de. yow nijaay 10 millions moo tax nga jaay sa ngor nii taxaw eh kon ki dugaluma ci xol maa ngi yee kii sax. yow xaalis nga jaay sa ngor. demal bala ma lay demal. demal la fa mata di. toogal fii wala ma tabla ndokk la toogal. oh, eh, oh, eh, oh eh, ya,